awo yi ak Secka. Secka euh, ñëw na fekk suñu ci plateau bi bi 9h39 <laughs> jotee Secka ñu ngi lay nuyu euh, guddi awo yi nag ah. oh. <laughs> waaw Pape Cheikh loolu mooy lan. ndaw ndaw tendance. waaw. Euh. rek a jóg xeelu lu tax loolu. man yow laa koy laaj. xam naa ne ku nelaw mënta yeet. Eh, waay. xam naa télé ak télé. naa ni kuy nelaw man te yeete waaw waaw xamee naa télé ak télé eh! xam naa ni kuy nelaw man te yeete xamee naa télé ak télé eh waay man xam naa ni kuy nelaw man te yeete c'est ka demal xamee naa télé ak télé eh xam naa ni kuy nelaw man te yeete xamee naa télé ak télé waay tale ak tale ak tale waay waay waay te ni nga ñu nuyoo doo ñu nuyuwaat. waaw waaw gadi xam nga ni. xam naa ni kuy nelaw man tayee eh, te. eh waay xam naa ni kuy nelaw man tayee te. déedéet naa télé ak télé. TFM TFM TFM mooy télé. bu télé waaw Pape Cheikh waaw maa ngi kontaan trop mm. euh, parce que fii dama fee am loo xam ne yaakaaruma ko woon sama àdduna fi sa kër la wax dëgg yàlla muy jàpp bi ngeen ci jàpp ba képp ku ma bokkal rek yëg ko li ngeen di def ci sama sport yi su ma ko bëggoon a fay waxuma laa anniversaire bi ni xaaj bi sax mënuma ko mm-hmm. muy borom kër gi nag wane la li moom homme de culture la. dëgg la wax dëgg yàlla. Mhm. parce que ni ngeen ci jàppee ñëpp ñëpp a koy rafetlu. Mhm. may kontaan trop di leen ñaanal yàlla nag. Mhm. yàlla ngeen raw tele bu nekk ci àdduna bi. amiin amiin parce que yéen wax dëgg yàlla xaaru leen ci nit xaalis. déedéet muy lu rëy ci man. déedéet déedéet alors lu tax lu tax guddi aawo yi parce que ñaareel yi. ñetteel yi ñeenteel yi takko yi sax ñu ngi kaas. célibataire <laughs> les les célibataires <laughs> jigéen jigéen moo am cër boo xam ne. Uh-huh. yàlla moo ko jox. Uh-huh. magasin yi yàlla la. Mm. mu denc ay secret. Uh-huh. fedde euh, fedde am na journée de la femme am na mais ba tey aawo day loo xam ne nit mën ngaa am jabar te doo am ñaareel mais ku am jabar ku ne am nga aaw dëgg la am jabar parce que borom benn jabar amul ñaar. dëgg ku am jabar ku ne am nga aaw. alors Mbirou Sarr nga baal ñu rek bul flouter image bi comme ñaareel nga sarax ñu rek ah. il faut nga il faut fair play nag tey. waaw tey tu es ah, obligé d'être fair play. waaw mais ñaareel yi. Ah. ñoom seen yoo seen wàll ngi ci ndax. ñoo fekk si aawa yi. Ah. célibataire yi ci ñoom la aawa yi. bàyyi ko kon mag ñi ñooy ànd ak seen i rakk. waaw mag ñi daal ñooy ànd ak seen i rakk. te seen i rakk tamit bu ñëwee xam seen place. bis bi si aawa yi la. mais bu yow de man lu amul tendance bugguma guddi googu moom. maay def tapis rouge bi maay présenté. mooy président célibataire yi. Ah. <laughs> moom mooy présenté célibataire yi. xam naa ko moom ci yooyu lay dox. yooyu en plus télé bi dafa am mbootaay boo xamante ni mu ngi tudd groupe nopp sa jëkkër. Bijou mi mooy présidente bi. Euh, parce que sama yaay moo ko delloo delloo lenge yi. alfi mooy trésorière bi. madame mooy seen porte madame mooy seen porte parole. sa jëkkër la. waaw ñoom groupe nopp sa jëkkër ku mere sa jëkkër bul yëngatu. ku sa xol neex ci ki ngay sëyal. ku sa xol neex jógal yëngu. ku sa xol neex jógal yëngu. ku sa xol neex jógal yëngu. jànka bu kontaan ci ki koy laabat. Eh aca wan biisu kaay kaay kaay kaay kaay kaay aja e aji yow ko may buttu Pape Cheikh Gaye Gaye ba ma ngi non mais non mais non mais franchement j'ai envie de créer une émission bu tudd tànn biir. xam nga dama doyal télé xam nga dama doyal émission yi laa bëgg daal man daal dama bëgg léegi ñu jox ba wala ñu créer desk ci télé bi desk desk tànn biir nga xamante ni may organiser ambiance yi euh, Eva Tra euh, ñu ngi lay nuyu. madame ah, Diagne euh, sama sama mag sama yaay voilà on t'embrasse très fort. Nabou Ose tamit ñu ngi koy nuyu Sénégal yëpp a ngi pare hmm. mais lu tax datu neuf bi. waaw xam nga xam nga mbir bu nekk. Mhm. day am loo xam ne rek. fa la ko yàlla mi la romb xeelu. Euh. daw tendance la neuf. guddi aaw bi <laughs> dafa mës a nekk sama xale naan kala daxaa li dina yëngu de. aaw yi jukkale <laughs> rasulilaay <laughs> ki nga xam ne bi nga koy takk yoroo eh. dara mënoo dara mu lay muñal eh. ba loo am tey yàlla ak moom tax wallaahi boo ko fi xaar hmm. dafa jar delloo ñu ko mais xale yi ajjee guñu de àggalil aj bi ah ajjee guñu de ajal rek kon ajjil sa aj bi loo fi def ba sax tey lu dul aji sa aj bi laa naa kiraaw faraja <laughs> alors nit euh, euh, mi ñu ngi laajte aussi euh, place yi parce que loolu waaw il faut cest ku ko fekkeewul bu dul dara nga dem rek dem rek seetaani jar na quatorze milliards waaw jar na jar na seetaani quoi di wane seen bopp léegi ñaareelu fu ñuy toogee ci ginnaaw aaw ah, boo gis sax xamatul baaraam bi ah ndax lan li ma mujj kër gi li ma fi daj rëdd rek yaa aaw bi ko

waaw ngeen partagé ko rek coté célibataire awo ñaareel ñetteel ak ñeenteel. célibataire ñuy joxañante. tu sais tu sais lu lu lu jar ah, seetaan si. Ah. seen délégation yéen waa groupe Nopp sa jëkkër bu. loolu moom. Ah, ku ko fekkeewul tardé ngeen. ni ngeen nar a dugg ci xam naa Alphine moo koy dirigé. déedéet sunu mbootaay bi ba président bi. seen parrain man lañ ko man lañ ko di jaayale. mooy parrain mbootaay bi. voilà parce que léegi fajar gi léegi dootuñu ma def bis ka dañu may rob na ma suñu caabi <laughs> nii lañ may nuyoo ñoom ñëpp. man daal man daal dinaa dee tey ndax bu six heures du matin jotee ci buntu télé bi lay taxaw bis ñaay bu rombe dama sama càmmet <laughs> ma ne waa sama càmmet li <laughs> sama caal bi <laughs> comme quoi ça change le le mariage alors ñu bëri ñu ngi bëgg a xam euh, euh, pour numéro réservation yi parce que billets yi euh, defe naa mu ngi jëm nag ci jeex waaw loolu moom dëgg la waaw waaw numéro réservation bi 77 la 186 uh-huh. 55 55. 186. 55 55 55 waaw léegi damay ragal aaw yi jënd yëpp. bon aaw yi <laughs> aaw yi tam dañoo ragal nag. ñoo dañoo ragal ñaareel yi de damay ragal ñu jënd jënd lépp bañ bañ ñaareel yi ñu ñëw. bañ a ñëw jëmee lañ ko de. <laughs> am nañu fitam ah. am nañu fitu jënd billet yëpp. Ah, waaw parce que wax dëgg yàlla eh, waaw mais ñaareel tam dañoo bëri pexe. damay ragal ñaareel yi jënd yëpp. aaw yi ñu ñëw aaw yi <laughs> mais mais ku mel ni Mati Ndiaye jabaru Iliman Lambo. Mati waaw bu aaw yëpp mel moom ba góoma ñaareel am na déedéet dëgg yàlla moom billet yu bari la jënd wax dëgg yàlla <laughs> ñuy jënd billet yi pour te dire billet yi sax bari ñu li man xeelu yi lay xalaat foofu ak tendance yi ak ci bëtu yi parce que dafa am koo xam ni euh. euh, dafa doon ànd ak moom tout le temps bu ñu rombee euh, benn cimetière saa ñu rombee cimetière bi rek day day xeelu ci bëtu donc ma remarqué ne à chaque fois bu ñu rombee ci buntu sëkki buntu cimetière buntu armée yi day ciipatu ma ne ko waaye yow man dama seetlu saa ñu fi jaaree bu ñu wàccee boo jibee armée yi rek da ngay ciipatu ma ma sama wuñ bi fii ko suul muy yéen mais kooku moom ku dee lay jiibut sama fii lañ ko suul di cest moo ko mu ngi tànn naa boo roy wujj ah, kuy fiire bay fiire bu ko waaye lay tiima dama ne la sama bi fii ko suul di da ça être magnifique le le ñan nga ci ñan nga ci invité waaw euh, invité naa ci Eumeu Sène uh-huh. euh, doomu Pikine Eumeu Sène ñaar jabar la am benn waaw benn jabar Eumeu Sène dina ñëw mm-hmm. Pape Diouf nee na dina ñëw ah. Viviane Ndour nee na ma dina ñëw. Ah. daam seen moom sama rakk waxaale wu ma ko. Ah. ak Salam Diallo. Ah. mais tamit dafa am li ma gën a neex ci anniversaire bi mooy dafa am sax benn xarit boo xam ne. ren mooy 14 ñëwul woon Sénégal. ñëw na démb ngir yàlla ak anniversaire bi. Modou Fall Ndiaye. sama xarit boo xam ne bokk na ci pare. neex a fekk Italie ak France. waa gis nga sama simisiya. waaw dégguma yi ba léegi. day ñëw. ñëw na ñëw na démb. <laughs> gis nga tax. yow yaa ma yóbbu Modou Fall Ndiaye. gis ci borom borom euro yi ci man. gis nga ci kenn du moom. waaw ak euh, mm. Sonia Gueye bu Bruxelles. Alnaw Ndiaye borom Pikine. Mm. Issab Sène Amérique. Mm. Malick Gakou. Mm-hmm. boobu léegi gisee wuñu. Cheikh daf ni ma woon dinaa la woo ki ma booleel woowu guma. yaa ngi woo ñu gaaw. Ah, xanaa dañ la ko déglu ak ak maam Soxna Lo sa sa jigéen. kon Modou Fall Ndiaye du ma yóbbu maam Soxnaa ma yóbbu. ah bàyyi nga Modou Fall Ndiaye teral na ma ba pare. jeex na. <laughs> lépp maa ngi woo maa ngi woo Sénégal yëpp na moom man lay yónni moom bu soobee yàlla. maa koy maa koy représenté. nee na ma keps lay yónni wax dama ko def. yi yi yi ara keps caam. <laughs> maam soxla wax dama lu leer de keps caam laa yónni. waaw kon moo ngoy ci keps rek. ak daal moom maa ngi woo Sénégal gépp uh-huh. di wax ni guddi aawo yi nag uh-huh. aawo yee ko moom mais dañ ko bokk ñaareel yi ak ñetteel kalmi laay jóob ñaareel la mm-hmm. mais nee na place aawo lay jël mm-hmm. kon maa ngi woo ñëpp rawatina mm-hmm. nag fi nga xam ni falaa dëkk juddoo fa Mm-hmm. yaroo fa te awma lu ko ëpp muy caaro yi caaro seen maa ngi woo ñëpp mm-hmm. waaw loolu dina yëngu kon euh, euh, dañ lay bàyyi nag nga préparé waaw jël micro bi tàngalaat fii tuuti euh, nga jox ñu avant goût li nga nar le le neuf incha allah théâtre Sorano pour ñu bëgg dem na ngeen teel a réservé teel am place événement wu télévision Futurs la mais nag li ci neex nag mooy tooñante bi am ci wujju yi ah, léegi xuloo ak xeex xewatul léegi tooñante xew cest dire nit ki di nga ko wax li ko war a wax. teg ak nekk ak ñaareel sax liñ préparé mooy. waaw dañuy xool ku gën a rafet sañse. ah tendance bi lool la. tendance foofu la quoi gën a rafet sañse mais en tout cas aaw yi daal nee ma ñoom. dañ uh-huh. leen ber ber ñaareel yi ku ne wala sa <laughs> ñii wane ni ñoo fi jiitu ci kër gi. ñii wane ni ñoom tamit ñooy seen xaritu. c'est magnifique. c'est un bon concept en tout cas. ayca dañ lay bàyyi nga dem taxaw fële. la laa bëgg pensé ñu ñu ñu def affaire yëpp surprise. Uh-huh. baal ba samedi ñu ñëw. Ah. ku ñëw. waaw mais di nga ñu di nga ñu mayaat dara de. mais loo bëgg ma may noonu il faut yaay Mouhamed mi yëngu tuuti. Ah. en attendant Mamadou Mouhamed Ndiaye mooy ñëw léegi.